salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyoo di la ziar Souleymane Diop APR. ah ma bi c'est très normal parce que boo gisee poste yu bëri amatul te ñu ngi jëm élection kon c'est très normal waaw le que mooy li ma la wax rek comme y a des y a des ministères qui sont vacants te élection jëm c'est très normal que gouvernement bi travaillé waat pour pour pour pour teg fi ay ministres yoo xamante ni dinañ eggale combat bi. bonne fure continuation la rek. ban frustration lay indi continuation la rek on ci élection lañ jëm c' est très normal y a des postes qui mooy li ma la wax léegi ah c' est que gars yi may bëgg lu ñu lu lu dingat ko rek mais vraiment man de gisuma ci benn benn problème wax dëgg yàlla mais c' est très normal waaw parce que dëkk bi moo liggéey bi moo demee noonu on comme comme de combat lañ jëm lépp dafa war a mat te ñu ngi jëm ci gaz ak pétrole kon on doit élargir le gouvernement ce qui est très normal sama gis-gis waaw ah, kooku dara nekku si dara nekkul ci pour man sama gis-gis pour pour pour ñaari ñaari ministères yooyu mais coordination la rek waaw moom li moom mooy li ñu wax rek waaw gouvernement de combat la ñu wax liggéey la ñu wax waaw te ñi fa nekk ñëpp kel ku ne fuñ fi ñu ko teg am nga fa am war nga faa mën a ne waaw waaw man noonu laa ko gisee. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd a Ba deuxième adjointe ci mairie bu Thiès Est nekk parti de l'unité et du rassemblement pur di nuyu ci euh, sunu président parti Serigne Moustapha si di ko jox wàccuwaayam yëpp di ko ndokkeel tamit ci mawlid bu ñu jóge di nuyu waa Sénégal yëpp nag bàyyiwuñu kenn waaw remaniement bi de buñ doon def suñu jàngatu bopp dañ naan rekk euh, waaj euh, ngóor si moom mu ngi waaj pour xëy na fa ñu jëm te soreetul dara muy élection présidentielle xëy na la mu bëgg ci réew mi bien que mu ngi naan dina ko doxal ba mu leer waaye lim ci bëgg nam ko bëggee mu doxalee ko noonu. waaw moom fi mu toll nii eh, ci ay pexe la nekk pour yaatal ba mu yaatu ci li mu jëm muy présidentielle ndax bu nee am na candidat te fekk xëy na moom mooy tëral mooy buub mooy bumi ca fa mu jëm ndax ka mu tuddee. ne mooy candidat moom xëy na rek ñun dañ ko jàppee kuñ fi teg nii waaw dañu jàppee rek kuñ fi teg nii waaye moom mooy tëral kon nag bu demee ci opposition ña ñuy tudde opposition mu ne da leen a jël dugal leen ci biir gouvernement xëy na moom mooy wut fu mu yaatale waaye ña mu dugal ñëpp ñun dañu jàppul ni war nañoo mën a e, soppi tarfatal ay ni ci fi nga xamante ni moom lañ jëm li Sénégalais yi muy changement te incha allah le 24 2024 euh, euh, dinañ gis ni sénégalais yi changement boobu gëm nañ ko te ci la ñuy nekk te dinañ ko réussir. ban changement xëy na moom ci côté waaye ci réew mi de man gisuma ko ndax boo jëlee ku mel ni Sidiki Kaba nga ne intérieur nga ko yóbbu <laughs> Sidiki Kaba ku ne xam na ni euh, lu ko Macky Sall wax mu def. a ah, ku jóge armée kay ñu indile la intérieur moom li nga xam mooy exécuter ay ordre rek ki jóge intérieur ñu yóbbu ko pétrole xëy na dañ ko ko neexalee rek moo tax ñun ñu jàpp ni changement bu mag amul ñun dañoo jàpp ni rek dañoo dañoo nekk ñoom di raxas maanaam boo gàmmoo ba pare dangay raxas def sa mbaxal ràcc mbaxal bu tooy pour séddaleeg yooyu ñun loolu lañ jàpp fi mu toll nii ñoom dañoo nekk ci seen raxas nañu raxas nag ak nu mu leen neexee ak lu ñu mënta tëral du tere xawma kan waaye parti ba ma nekk muy parti PUR parti de l'unité et du rassemblement jëm dox jëm 2024 bi ñu wax ànd kook sunu candidat du parti AMD Aline du Dia ñun leer nañ ni sunu président parti du juum te fi mu jëm dinañ dox liggéey ba sénégalais yépp xam ni lañ doon def bu njëkk mooy dañu doon dem rek ñun folli gis nga le président Abdoulaye Wade bi ko fi sénégalais di jëlee en 2012 dañ doon wax ne góor gi na dem na dem na dem mais ñoom xamuñu woon kan lañ fi teg la bonne personne bi ñu demee ba ci cappaandoo ga jaaxle ñëpp riir daal ne Sall la moom la moom la moom la parce que gisuñu woon keneen loolu moom lañ gisoon kon faluñu situation buñ leen obligé woon la ca poto ñu woon Macky Sall. fii fii ñu toll nii temme ñu ngi ci sunuy parrainage parrainage euh, citoyen la ñuy def ñu ngi dem ci population bi di jël sunuy parenage di ko def ci anam bu mu gën a selle bu ñu jàlleeg sunuy parenage ñu nga jëm ca leneen sénégalais nañ ñu xaar ñu xam ni PUR musul def un mauvais choix musul xalaata jubal sénégalais yi foo xamante ni du fi gën dañuy ñaan yàlla nag sénégalais yi gën a mûr ñu gën a ubbi sunuy bopp gën a ubbi sunuy xalaat ak sunuy gis-gis xam ni réew mi tollootul fu ñuy defee partage du gato kaay nga jël lii ma jël lii kële jël lee dañ ne nit ñi nga xamante ni ñoo aspiré ci changement bëgg Sénégal gi génn ci ndóol ak pauvreté bi ñu nekk waxuñu ay infrastructure yoo xam ni lekkuñu ko naanuñu ko dañu ne loo xamante ni sunu njaboot yi jàng njàngin bu mucc ay bu école tijjee ñu bañ a nekk di def ay façade ak ay mascarade naan ubbi tey da jàng tey alors que ñiy ubbi tey di jàng tey xam nañ ñan la doomu borom barke yi la ña ca privé yi la mais public bi xam nañ ni tey jii ña cay jàng tuuti la fourniture scolaire bu mat sax amuñu ko école yaa nga fees dell ak ñax bu bu bu bu association yi jugul ànd kook seeni jeunesse su koñ ak ñëpp bale nettoyer du sotti duñu jàng kon loolu euh, ubbi tey jàng tey du lu nekk yooyu lañu bëgg mu jeex ci réew mi avec pur changement dafay am ndax ay homme de valeur lañu tàllal loxo tàllal sénégalais yépp loxo bañ nañ ba waxuñu le candidat du pur on a dit du peuple loolu la président parti wax kon nag ñu ngi tàllal ñëpp loxo daal di wax ni AMD bientôt di ngeen ko gis fépp ngeen xam ko bu baax bien que ñu bari xam nañ ko mais di di ngeen ko gën a xam balaa yàgg incha allah. asalaamaaleykum maa ngi tudd Khadijatou Ndom ci parti bu ñuy wax grand parti bu El Hadj Malick Gakou nekk conseillère à la mairie ville. waa man li ma ci gis mooy jax jaaxle laa gis foofu ak jaxasoo ndax xam na ni nit ñi léegi ñëpp yeewu na nañu te li fi amoon dootu fi amaat ndax mburu foofu ko fëriñ ndax képp ku jàppale du baax wala képp ku jàppale buun mu ngi mel ni Macky Sall nga jàppale li fi nekkoon rek laa fi gis six ay neuf li amoon dootu fi amaat sax ndax duñu leen ko may ñun lépp lu luñ ci mën a def ci combat ak ñoom ba jëlee leen fi dinañ ko def te incha allah ñun dinañ leen fi jëlee bu neexee yàlla. non benn bokk yaakaar moom duñ ko dooleel. incha allah opposition yi lu lépp lu nu mën a def ñoom ci booloo ba jëlee fi ki fi nekk dinañ ko def te incha rab yi loolu am nañ ci yaakaar dinañ ci am ndam bu baax a baax. allahu rabbi loolu dinañ ko mën a am bu baax a baax ndax réew mi kuñ koy dénk dinañ seet borom loxo koy set koo xamante ne am na yërmande koo xamante ne mun na jiite Sénégal koo xamante ne am nañ ci moom yaakaar kenn mosu koo dégg ci loxoor ku mel ni El Hadj Malick Gakou ñu dénk ko réew mi ñun ku mel ni moom la ñu soxla borom loxo yu set ku am yërmande ku bëgg Sénégal. mën a jiital ndaw yi jiital mag ñi am yërmande ci baykat yeeg nappkat bi kooku la ñu soxla mais soxla woon ki nga xam ne day récolter di def ci poosam Sénégal nag ku ma am ndey ak ku ma amul ndey ñoo fi nekk loolu moo fiy jeex justice amatu fi waaw loolu lañ fiy jëlee ku mel ni noonu nag ku mel ni El Hadj gàkku Gakou ñun moom lañ ci wóolu ci Sénégal pour mu mën koo diriger tabaxaat Sénégal bu bees Amadou Ba amul benn charisme Amadou Ba Parcelles Assainies sax mënu koo gagné Amadou Ba ka Parcelles Assainies sax mënu koo gagné amul benn charisme waaw mënul changer dara ci APR parce que ñoom dañuy pëcc xoo fi mu nekk ni tasaaroo nañu kon ñoom dañuy gën a dooleel opposant yi ndax ñu bëri dinañ jóge ci ñoom ñëw ci opposant waaw parti APR dafa tas fi mu nekk nii ñëpp dinañ daw dem ci opposan yi te li ci kanam rawu li bët nan toog di xool demel na ñoom opposan yi la ñuy gën a dooleel fi mu nekk nii nan xaar tuuti rek opposant yi la ñuy gën a jox doole fi mu nekk nii waaw APR moom na toog xam ne yaakaaram tas na ñoo ngi ci bu baax baax xanaa gisoo ñu sonale El Hadj Malick Gakou Fouta fu mu tourné ñu téye ko convoi am ni ko doo dem ah loolu pour lan te ñoom bu ñu jógee bëgg a dem dem seen yoon kenn du leen téye ah c'est pas normal ma ne ko c'est pas normal du yoon nan bàyyi ku bëgg campagne campagne ku bëgg a def sa tournée def sa tournée mais pas di jaay doole loolu dafay bare jeex daf tax dafay jeex incha allah. waaw c'est Mamadou Ngom responsable euh, politique du parti Rewmi. maa ngi milité ci commune Thiès Est. bon ni ma gisee remaniement bu bees bi nga def j'ai comme l'impression que ni le président Macky Sall et la coalition benn Bokk Yaakaar comprendre nu enjeu bi nga xamante ni moo war a am deux mille vingt quatre parce que dama gis ni nit su fekkee ni jàng nga téere yëpp. aussi da ngaa war a lire les phénomènes donc du ñu wax ni le président Macky Sall amul lu mu fi def parce que mënoo ñëw jiite réew durant douze à treize ans te defoo fi dara sii def na fi dara mais aussi tam man dama gis ni dafa am li nga xamante ni daf ko bàyyi woon muy les priorités dem ci li nga xamante ni nekkul li nga xamante ni mooy. li nga xamante ni moom la askan bi soxla donc may wax ni histoire politique du Sénégal bu mu amee ba léegi pour la première fois man ma gis Sénégal di dund ci ab gouvernement bi nga xamante ni nii la demee gouvernement bi ni mu demee dañ koo tas mu toog pratiquement une semaine kenn kenn mënu la tabax gouvernement bi nga xamante ni dafay suppléer ñi nga xamante ni ñoo fi jóge te man loolu dama gis ni c'est un manquement manquement bu rëy bi nga xamante ni le président Macky Sall et la coalition benn Bokk dañ ko def. bon je ne pense pas que ni le président Macky dina gagner élection bi parce que man je, je dirais même que ni il va perdre les élections il va perdre les élections. ndax li tax ma wax ko bu fekkee ni si boppam parce que aussi tamit laa on a un bi nga xamante ni la ñuy nattee des élections on sort des législatives euh, des élections locales ñu génn ci élection législative te ñaari élection yëpp laa wax dafa wone ni le président Macky Sall mënatul gagner élection donc dafa am li nga xamante ni nit ki xel moo lay may nii nga xam ni lii si boppam moo ñëw toog am. remaniement bu bees bi comme ñoom nuñ ko waxee rek laa la wax gouvernement de combat la. ñun Sénégal ñun on a besoin d'un gouvernement d'intelligence ñun nekkuñu nu pour xeex parce que y a beaucoup de défis qui doivent être relevés dans ce pays tout d'abord depuis 1960 je ne peux pas comprendre gouvernement yi fi jaar yëpp laa la mënuñu atteindre autosuffisance alimentaire au moment ou le Sénégal am na 3000 heures de soleil on a 43 000 hectares de terres non cultivables on a des milliards de mètres cubes d'eau donc bu fekkee da ngay ñëw proposer leneen nga bàyyi l'agriculture nga xamante ni dëkk bu développé agriculture moo la moo moo la yóbbu man loolu sa pose problème